gox yi ci Touba te sori lool Alla Sylla di fa wéyal ay tournéem ginnaaw daarul xuddoos minatul axla jannatu njenne daarul marna tey ñoo ngi woon aliya ci seen troisième étape bi askan wu takku dalaloon bàyyi Alla Sylla ci gox bi bàyyeet am engagement ci jàppale ko ci ay bëgg-bëggam ci falaatu président Macky Sall dès le premier tour ñun nag ñoo ngi sa ginnaaw ñoo ngi sa parce que yow lañ fi nekkal yow lañ fi nekkal te nag am yaakaar ci yow am yaakaar ci yow moo tax ñuy sonn ci yow parce que ginaar moom du gis kuy bojj di topp kuy taxani te yaakaar ji nga xam si nii moom lan am ci yow yàlla wu yàlla tas sunu yaakaar ci kàttanu yàlla ak baaxam ñun nag foo nekk ña nga fa foo nekkul nekkuñu fa ba géej fer nag amuñu fenn fu nu jëm ku yow ak Macky Sall kooku lan soxla ndax président Macky Sall dañ koy ñaanal premier tour bi ñu jëm dañu bëgg and ak yow ba palé nga tégal ñu fa Macky Sall ñu ñibbi ci Touba ñu lay xamal ne suñ jigéenu koñ bi ku ñu jàppale rek lañuy wër ta ku ñu jappalé ku ne ñu jappalé la kenn ku ne ba daatan taxaw fi da joggé ca gerte ga sangu ba pare sok la wuy si ndax yañu ko jaral de Ahmad Dame Sylla yëkkati fa ay kàddu yi xamle ne bëgg-bëgg bi njëkk mooy Macky sàll am ndam ñoom ndaw yi jàppal tànk Baye Alla Sylla gën ñaxaat askan wi ci ñu farlu jëli seen ay carte électeur ngir li ñuy bëgg mën a yemm Alla Sylla mu teew fi tey ànd ak délégation bu rëy ñëw seet si waa gox bi ñu ngi rafetlu seen mobilisation bi rëy na lool ah di leen wax ni nag ànd ngeen ak ku mat a àndal muy le leader bi nga la leader social leader bi nga social président Macky Sall kat umplé wu ni bi local 2014 référendum 2016 législatif 2017 élection yoy yépp daf ko gagné waye yoy yépp nak bu ci né Touba daf ko perdre lolu nak bay Alla ci mii moo ko fas soppi té soppi gogou moko ko soppi nak daf ko bëgg jaaralé ci ànd ko ak yeen ba bu le 24 Touba le président Macky Sall gagné ko avec une majorité éclatante dès le premier tour lolu na ngeen ci jàpp taxaw ci lolu nak ni ngeen koy défé moy kenn ku nekk ci yeen na jëli carte d'identité am denc ko bu la 24 fajar teel bul xa bul xaar ku la jël si bul xaar ku la convoyé demal ca bureau ba nga war a voté nga dem jël Euh, bulletin wu le président Macky Sall bi nga xam ni moo am bopp fas wi nga dugal ko ci enveloppe bi bañ koo kole dugal ko ci urne bi. ay àll si lay xam xamle ne benn objectif rek la am. falaat président makis Sall. moo waral muy dem ci gox yi gën a yi waaye xam seen ay bëgg-bëgg. la mu ca man mu daal koy def la mu ca mënul mu jot li ko njiitum réew mi. asalaamaaleykum muy nuyoob jullit ñoo ngi leen koy nuyu bu baax di leen sant nag bu baax ci dalal gi ngeen ñu dalal fii tey muy Aliya. ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di nuyu sëñ Assane yaakaar naa ñëw na ba kër ga xam na la fa xew gis na nit ñi nañuy duggee ak a génn kon daanaka jot gi mayuñu ko waaye am yaakaar guñ am ci yéen yaakaar loolu moo tax ñu bàyyi suñ ite yépp tey ñëw pour seet si leen siyaar si leen nemmiku leen loolu moo doon tànk tey di leen ñaan nag dafa am luñ jublu liñ jublu nag yéen xam ngeen ko comme ni ko bay Dame waxee rek ñun suñu wax mën na cee bari bañ a bari ah, liñ am yéene mooy ni mu ko waxee rek président dawul gañe Touba mbaa gëj na koo gañe wala mosu koo gañe ñun nag dañoo jël suñu tànkub tubéy tey xar ko ci pour mu gañe Touba li tax ñu jël ko it président dafa am ñun njekk lum lu lebaloon te njekk loolu it dañoo fas yéene ñun danañ ko ko fay fas nañ yéene ñun incha allah le le 24 président dana gagné Touba ndax dañu fass yene dem ci ñinga xamni ñom ne ñoom am nañu carte comme ñu melni yeen mag ñu deggu jigeen ñu deggu ndaw ñu deggu te yor seen carte ñun ñooñu la wër waaw kon alhamdullilah alhamdullilah rabbil alamin waaw buñ ko amé nak ñun na ngeen xamni mom bu ngeen ñeen sama kala gi bu ngeen ñëwee bayo bo ngeen ngëp ci li ngeen soxla bu ci yalla andé lima ci man Sabab bop man dina ko jëm président yi mom mu ngi leen di dégg lin am nag dañ leen ko jox ndax nit tamit du wax waxe kese dañ leen koy jox ngeen tënku ci dara comme ni nit ñi défé ni ni def rek fu dem fexé ba tënk leen ci dara soxlay soxlay tuba xamna na am na yuñ ci xam na ngeen fexé dal bu bes ba ali yi na ngeen ci gorlu surtout yeen ndaw ñi ak gor ñi ngeen taxaw ba gagné ko ñun liñ leen wax inshallah allah duñ ci nau. gannaaw askan wi xamle ne seen gox boobu woy politique yi dañu leen a fàtte ba ñu mere woon leen lool waaye Alla Sylla fay na daay gi ginnaaw bi mu jógee ci caravanam bi mu dalal waa Zone 5 bu ñuy wax solution APR ci Touba Alle silla la lu kenn dul natable ñoom ñi dëkke ci Darul karim ak aliya mer ba fut lañu def ngir seen découpage bi takale len ak seen responsable yi ñuy xamle ne ñi jiite seen zone bi ñu len fenn te mësuñu leen nemmeeku te ñoom ñu beddi len ca ñoom responsable yi xamle ne lu fa président Macky Sall ñàkk ñoom ah voilà effectivement ñun kenn féetaluñu fenn parce que kenn néew ñu zone bi kët diw lañ ko allié wala diw lañ ko coordonné loolu nag bi mu amee ñun ñoo xool baay àll ba mu neex nu liggéeyam doy ñu mu doy ñu sëkk ñu jël ko rattaché wu ci suñu bopp ba luñ ca góobee nag yar ñun moom la def ñoo jël suñu bopp rattaché ko ci moom ñoo ngi nii ci këram seetsi si woon ko pour loolu leeral ko loolu zone la boo xam mu ngi sës ci fi mu féete nii fa mu jeexale foofu lañ tàmbalee. wàllu coordonnées yi ñun kenn defaluñu si leen ñoo tax ñu jël suñu coordonnées bopp coordonnées ko ci ànd di ci liggéey ba yàlla dogal nag sëñ Mourou Kara mi nga xam ne moo nekk Daaru Karim yàlla dogal ñu fexe ba ma ànd ak sëñ Fallou wate boobu ngay wax man maa ne maa doon supervisé euh, quartier sëñ sëñ Fallou moo moo tax mu gañe bureau moo tax mu gañe fa yàlla dogal na nag wate bii nu jëm na mat def taxe woon sëñ Fallu noonu laay ma Macky Sall foofu te incha bu soobee yàlla balaa takkusaan dinañu xam ne Daaru Karim man santuma Mbàkke jaañ laa sant waaye nag ku fa am soxla parce que li may wax lu leer waa Daaru Karim lay doon képp ku fa am soxla dinaa ca def li ma man képp koo xam ne kii de nga jàpp nga guddi man mii ngay woo téléphone doo woo ko sant Mbàkke doo woo ko sant neneen man mii ngay woote man ngay fëgg sama kër maa lay wooteel téléphone maa lay wol taxi mu jël si la boo amee loo ca def maa ko cay nga def ko ca boo amut loo ca def maa ko cay def kon yaakaar naa ne su ma leen nee Daaru Karim bu soobee yàlla su yonantu bi Macky Sall dina ko gañe xam na xaj na yéen mën mën ngeen koo bañ a gëm waaye waa Daaru Karim moom dinañu gëm loolu li ñu metti woon moom mooy ñàkk yëg rek li ñuy def duñ koy lu ci bari duñ ko yëg nun nun ñii ci boole suñu bopp waaw noonu noo noo boole suñu bopp ci àll parce que fii Touba moom bu fekkee caaxaan yi dëgg des àll ni mu fiy liggéey kenn liggéeyu ko fi ak ko mën a doon nag waaw ni mu fiy liggéey moom doo ko fiy def waaw moo tax fi mu toll tamit ni nun ñii ak ñeneen a ci yem boo de waram dëkk bi it àll si la moom tolluwu fekk kenn doole normalement normalement Macky Sall war na koo defal loo xam ne lii ñun ñëpp danañ ci gis suñu bopp. waaye àll ñun ñoo xool ne liggéeykat la man sama bopp man maam Diarra Diop nëbbatuuma làqatuuma koñ ba ma dëkk politiciens yu bari ñëw nañ fa nëbbatuuma làqatuuma ndax damay wax te yàlla suñu borom tax ma di dem ci ay mitinam dem ci ay réunion di dem koor ga di gis social yu muy def di gis lépp li muy def ma xool ko li muy liggéey doy ma ma ànd ak moom kenn obligé wu ma kenn mayuma ñaar dërëm keroog bi may wateel Macky Sall ci bureau bi ma ko doon watee lii may wax yóbbante la nëbbatuuma Daaru Karim bureau bi ma doon watee responsable nekku fa man maa fa dem kaas ay mag yi jëmm ngi nii falaa leen fekk bi ma leen nee ana carte Macky Sall dañu dañ maa bëlëfe ci biir nit ñi dama ne leen nag xamu leen ku may wateel da ngeen di génne carte yëpp wan ma maa xam ki ma neex ma wateel ko waaye duma dox ci loolu loolu nag yóbbante la bàyyi àll ndax ñun ay nit lañ te dañoo am ñu doy ñu doyloo leen su bëgg nañ fu ñuy watee tamit su responsable nekk fa ñu xam fi ñuy wate xam fi ñuy teg suñu tànk waaye kat woo ay nit joxe fii 2500 na wateelal di wateelal di man lii may wax ragaluma ci nëbbatuuma làqatuuma man li may wax dama ngëm-ngëm la ci sama xol la nekk te dama koy wax mu yóbbante Alla Sylla xamle ne jamono jii du jamonoy wax jamonoy liggéeyal président Macky Sall ndax moom rek moo soxla moom Alla Sylla fas yéene fay Daigi gi tey xam leen ni lu leen metti woon na leen neex lépp lu ñu leen xañoon ci ay moyens moom dana leen ko jox te kenn wérantewul li ko président Macky Sall defaloon ci élection législative yi ngir fay bor bi ko président lebaloon mooy mu gàññeel ko ci élection présidentielle yi ñoom waa 65 boobu yi xam le ne lépp lu ñu jàppoon fas yéene nañu ko bàyyi ngir falaat président Macky Sall ci atum 2019 waaye nag seen leader kenn rek lay doon muy Alla Sylla ñun nag ñu ngi leen di siyaare bu baax ci comme firnde ji ngeen ñu indil tey mu mel ni firnde ji ñun mooy liñ doon bañ ci bi ñuy tabb soon yi loolu lañ doon wax doon ko waxaat ba tey loolu rek lañuy wax ñun nag ñun fii ñu tollu tembe nii xam nañ ni du heure wax du heure def dara heure liggéey rek la man li ma leen di wax daal mooy ci gàttal da di dellu ca soon ba bu ngeen demee ngeen waxtaan ñun ñu fexe ba lu soon war a am ñu fexe ba jox leen lu ëpp loolu ngeen dem liggéey ñun daal lañ soxla mooy le 24 février du ñu boddi du ñu def dara képp ku nga xam ne danga war a bootu cib soon te ña nga war a boot bootuñu la na nga ñëw liñ liñ warloo yow ñun wala luñ joxub soon dinañ la jox lu toll noonu nga dem liggéeyi foofu lañ toll kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ngeen dem dellu waxtaan ak nit ña ngeen jàpp bés bu ñëwee danañ def lu nga xam ni yaakaar naa ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp ba mën a dellu ci dellu ci liggéey bi bu liy jàllee nag soon yiñ bëgg a tànk ñu fexe ba bu ñu koy tënkanti yéen ñu yeew leen ñëw ngeen fekkee teew yaakaar naa dañ leen a bootoon ci Daaru Xuddoos wala Gédé ñun bi ñu ko waxee xam nañ ni fañ ko doon waxee kaas nañ ko fa ndax xam nañ ni ñooñu soree ngeen ak ñoom kon yaakaar naa am na coordination yooyu dana manqué ci dëkk bi waaye ñun li ñu am yi daal taxaw ko fépp fu nga xam ne manqué am na fa ñun dañ dem taxaw fa taxaw ci seen ginnaaw ñu liggéey ba yi jàll ñu dellu waxtaan ak sunu sunu sunu sunu bokk yi nga xay ne dañoo bëgg àndal fal président de la république le 24 février